ah Idrissa sànq maam as dafa dugg ci sa maam nga ñëw fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin waaye xasida ñoom bi ñu ubbee gàmmu gi ubbi lee la ko mooy conclusion gàmmu gi bul way de mooy conclusion bi ndax sunu maam Cheikh Sidi Aboubacar si radiallahu anhu xasida bi li Maodo donn ci Seydina Cheikh Ahmed Tidiane yi moo tax bi mu ko sàddee ñii ne Cheikh a ko moom ñii ne Maodo ko moom tarbiyatul istilaaxiyatu bi mu am ci Cheikh moo tax xaalam daf ko nuru daf daf ko nàmp mu ni xasad naa man sama fadla xasad naa mën na la may lu sa salaire mënul jënd loolu nag ku la ci audité wéeru ci sa salaire doo daanu ndax président ma ko may baax na lu président maye ñu seet sa salaire mënoo ko caa am ku la ci auditer doo daanu président ma ko may moo tax mag ñi lu ñu amee ci yàlla ne hada min fadli rabbi ndax damaa deful lu tax ma am ko te waxuma lu tax ma am ko ba pare am ko kon hada min fadli rabbi yi ko may Maodo nag juróom benn la juróom benn ak ko may benn bi mooy xam ko te bu ko wax xam ko te bu ko wax bëgg ñaareel bi mooy mën ko te bu ko def ñetteel bi mooy xool ko te bu ko gis te bu ko gis ñeenteel bi mooy am ko te bu ko sa loxo laal juróomeel bi mooy déglu ko te bu ko dégg juróom benneel bi mooy mos ko te bu ko taxamtiku moo tax Cheikh Seydou Aboubacar ne sama seddu na ci ngëneel loo xam ni laa xaasu kenn mënu ko natt atey naa ñëwal nañu dikkal nañu fekk si nañu man ka nga xam ni aslan boo ko dee seet ci cosaanu sharia qad nafa mithla amu ca moroom boo ko seetee ci cosaanu xaqiqa qad nafa mithla amu ca moroom boo ko dee seet ci cosaanu tariqa bi qad nafa mithla amu ca moroom lu tax mu ni Seydul Xaaji Malik Safa principe actifu xaqiqa la safa principe actifu sharia la safa principe actifu tariqa bi la moo tax mu ne waan naa ci ñun xadd nafa misla duñ ko utal moroom jaza mawlaaya cheikhi yal nañu yàlla fayal sunu sëriñ ñu ni ko kan mu ni mooy ki nga xam ni ala yàlla yaxmi lahu chamla moo ko garantil njaboot gi ndax boo amee kilifa doo ko natt ci ku amul kilifa da koy natt ca kaw amul kilifa boo amee kilifa bul ko natt ci ku amul kilifa da koy natt ca ka amul kilifa ka ku fi yilif ku ne fii Cheikh El Hadj kuy kilifaam maam Alpha kuy kilifaam Cheikh El Hadj kuy kilifaam Mouhamadul Ghali Mouhamadul kuy kilifaam Cheikh Tidiane kuy kilifaam yonti bi kuy kilifaam yàlla kuy kilifaam mooy ki amul kilifa moo tax may da koy nat ca ka amul kilifa Cheikh Sidi Aboubacar nee na foofu laa natt sama baay moo tax lanaa fawzun am nañu la ñu bëggoon waaye lanaa xunmun am nañu lu doy sëkk kon fa antum ya ahibai marhaba sahla soyez les bienvenus ci lan mu ni bi sahmi sëriñ bi dafa yéeme Cheikh Sidi Aboubacar ahlan wa sahlan wa marhaban la teqale séddale ko ci way wi bi sahmi marhaban sahla fa antum yaa ahibaai fa luudu bilqara ahla ahlan wa sahlan wa marhaban moo tax wax nga sànq wax bu am solo ne nga am kilifa yomb na waaye kilifa bu la joxañ ku kenn yiliful ko koo jafe te mooy yàlla subhanahu wa taala moo tax du lu nit fekke rek xam ca dara du lu nit fekke xam ca dara am na lu nit fekke te lu mu ca xam te lu ca wax dañ ko dañ ko ko wax am na lu nit fekke te lu mu ca xam dañ ko ko wax mooy sa bésu tudd kenn ku ne sa bésu tudd la nga ca fekke nga ko ndax yaa waral daje bi yaa waral xar ni yaa waral laax yi yaa waral beñe yi yaa waral ndawtal yi nga juddu ba ni set luñ la ca laaj xamoo ko loo ca wax dañ la ko nettali te fekke nga ko kon nañu bàyyi yàlla ak xewam Seydul Xaji Malick mii na radiyallahu taala anhu moo ñu dimbale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi mu ne yaa gaaisal baxri lil asdaafi waxul gaa yi ne yor naa ko dafa ne indiya am naa ko ah, du benn waxul la dayya dafa ne indiya li ngeen di wuti am naa ko te bi ma ci am ala moo tax ma wax sànq ne Maodo yorul dara waaye am na dara moo tax nee na turu may ñëw na waaye fonction bi ñëwul ndax may du ànd ak condition may naa la yére may la mbaxana may la dàll waaye gàmmu gi may dem bu ko fa sol foo ko bëgg a yóbbit naa ko yëg waaw loolu la wolof tuddee may ci digganteem ak yàlla ndax réere yàlla indi loolu may du ànd ak condition moo tax Maodo nee na lu yàlla dénkaane fi ne moo tax ëllëg mu di ko laaj moo tax mu ni mooñ naa cere ji ba mu neex ma xëpp ci suuf neexul a lekk nag waaye ku ko ñeme bu duggee sa biir rees démb ci buntu kër Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour yal na yàlla yokk leeram damay génn dajeeg sama ñaari bokk daara kenn ki di sët ci sunu maam alxaaji Njoobu Ñang ñu ko wax Papa Njaay sunu bàjjan nafi ñan Ñang jur ko mi ngi ànd ak benn silmaxa pour ne pas gumba ah, du benn ñun ñi toog di xoolante ñun ñooy gumba yi kii di woy sant Fall nu tudd Alioune Fall mii li muy woy ñi yor bëtan ko tiim ci téere te mënuñu koo mokkal te moom jamono bu koy way daf koy tari sëriñ damay nettali benn fi fi nga toll. Ah. dañoo daje tëngee ci benn dëj. Ibrahima Thiandoum moo dee. Hmm. ma ñëw gaare ñu dugg dem ci biir armeel yi. Hmm. muy génn mu nuyu ma. Hmm. ni ma da dem kër ga maa mun ma kon boobu yóbbaale ma. ma dóor ko ci kanam man dellu ci ginnaaw. man suur di arrière mu ko moytul xeer boobu sa ginnaaw te man suur gisu koon kat. bi ma gestu damaa tiit. waaw. est ce que maam as nee na ñoo ajandoo 1998 waaw waaye xëy na bu ma ko waxee ci wàllu adduna nii dafay tegu ci cadre waxtaan rek waaye diggante silmaxa ak gumba nañu dellu ci alquran abu lahab ba jur yonent bi xool na ko weddi ko. kon gisu ko abdullahi ibnu ummi maktum ci abasa wa tawalla bi muy ñëw mu ngi naan an sama waa ji xoolu ko waaye gis na ko waaw kay mu ni ma moom silmaxa bi de ñu présenté ma ko mu ni ma xamula laa bëgg nga ñaanal ñu sunu ngor gi dëgër sunu ngor gi wasalaamu aleykum wa rahmatullah tàllaleen loxo yi